asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal seen chaîne YouTube Ben Makhtar euh, tey damaa ñëw indi leen benn secret secret boo xam ne ndax am na ñu bari ñoo xam ne parfois dañuy am jafe-jafe pour bind alxuraan wala yu deme noonu daf leen métti am na ñoo xam ne amuñu moyen pour dem ci sëriñ ñaanlu moo tax parfois ñu leen di jox loo xam ne am na doole te itam dina mën a dimbali tey dañuy mbiru moo xam ne dafa sonal ñu bari ñoo xam ne seen biddiw yàlla moo leen bindee noo xamante ne euh, xam nga doomu aadama cat làmmiñ bët wala nit ñi nga xam ne ñu ngi lay xeex ñi ngi def le tout pour lépp loo nekk moo xam ngay liggéey moo xam nga nekk koo xamante ni yàlla daf laa may nga avancé wala tey nga nekk si sëy mu neex wala nga nekk si diggante mu neex nit ñi di si wax di si def di si wax di si def ba nga si ni day dem bu mujj Eh, lu yàlla xam doy na moo tax si côté boobu lañ ñëw tey yéen incha allah pour jox leen si benn secret bu am solo bëgg nag ngeen def secret yi leen jox ndaxte gis nga àddina balaa nga naan naam da nga fay nekk balaa nga naan naam da nga fay nekk na nga fexe sa yaram set sa biddiw bi su leeree rek macha allah sa lépp dafay leer lépp loo dugg day barke lépp loo nekk day neex kenn du la mën a xeex ndaxte sa yaram sécuriser nga ko sécuriser nga sa lépp. ndaxte bul fàttee boo amee njaboot itam na nga fexe ba boo defaree sa bopp nga defal sa njaboot ndaxte buñ ñu utee amuñ la dañ lay jaar sa côté njaboot kon bàyyi leen xel loolu ngeen jéem a seen côté yaram tey secret boobu laa leen jox tey nga xamante ni day ubbi si buntu wërsëg yépp aar la sàmm la lépp bépp jafe bu nekk sa yaram di la yàqal da koy dindi comme li ngay ut yomb na utal xorom ndaxte li ñuy jëfandikoo xorom ci la bokk Euh, su ko defee incha allah nga ut euh, li ñuy tuddee laaj laaj ñëpp xam nañ ko li mu leen wax nii yëpp dafa am waaw nekkul lu jafe ku nekk foo nekk mën nga ko def beneen ba nga ut itam sa saw bul wax ne dafa salte wala nangam sa saw la kon bum salte si yow ndaxte lu lay faj la lu jëriñ la kon bul tubaab bi mukk ba lii duma ko def ndaxte dafa salte dafa nangam salte wut li muy def si yow moo ëpp waaw li muy def si yow moo ëpp. kon bo amé lolu yépp légui nga am ci show show parce que li liggéeyu juróomi fan la bëd bu set da ngay défar amul da ngay défar xooj chaque jour nga siy sangu déedéet chaque jour da ngay défar bo tegee ce show def ci ndox bu lo mëna sang fekk ci guddigi nga koy préparé ndaxte li bo xëyee suba nga koy sangoo ci guddigi bo boo ce show def ci sa ndox mu lo mëna sang suba su ko défé inshallah allah li si topp mooy nga ut euh, laaj laaj nag bu amee juróom benn doom moo gën juróom benn doomi laaj dafa am secret bu si ne juróom benn doomi laaj ngay ngay ut ginnaaw boo jëlee sa ndox defar ko jël sa siwo def si ndox yaa ngi dégg teg nga jël juróom benn doomi laaj fereje ko fereje ko jël doom yi fereje ko noonu waaw muy laaj bi ngeen gis nii boo ferejee doom ba doom yi fereje su ko defee nga jël dugg ko si def si biir ndox mi xam nga jël nga laaj yi def si biir ndox mi après li si topp mooy lan moy xorom nga jël sa nëbb loxo xorom nëbb loxo nak moy tibbu am na ñoo xamne dañu dañoo day dégg olof nëbb loxo moy sa poigné sa loxo bi manam li ngay tibbé añ loxo bi ngay tibbé mom ngay tibbu ci xorom waaw xorom ci mo nek non mom ngay tibbu ci xorom ci bir euh siow bi nga xamne def nga ci ndox def ci laaj bi ma la wax ak xorom ci légi xam nga loolu boo ko defaree si nga ko defal nga tek légui bo xeyé am na ñu bëri dañ naan ay ma xëyee du ma saf soow waaye yaakaar naa ne nit ñi normal ñi ku si nekk boo xëyee da nga sa premier sow kon boo xëyee sa premier tour ndox maa ngi jégalu si kàddu gi sa premier tour ndox ndaxte am ay mag yu ñuy déglu moo tax bi nga defaree lépp ba teg naan dara desul loolu nga xëy war a sangu léegi sa premier tour ndox moom ngay jël tuuti rek jarul muy bëri tuuti nga def si biir show bi bàyyi une minute nga tiim show bi ñaan si sa bépp soxla bépp soxla boo xam ne yaa ngi ko bëgg bépp soxla boo xamante si ni yaa ngi ko yaa ngi koy sàkku nga ñaan ko si ñaan ko si ñaan ko si ñaan ko si ñaan lépp loo bëgg bul bàyyi dara dégg nga boo ñaanee a ñaan a ñaan ñaanal la sa njaboot ñaanal la sa bopp ñaanal sa lépp sa lépp sa lépp ñaan ko ndax bul fàtte ne sa tur ndox sa saw moo nekk foofu te loolu beneen secret la wala langim beneen secret la bu am doole nga ñaan si ñaan si ñaan si li nga bëgg yëpp soo ko demee jël sangoo amul ay lii dafa salte am na nangam jëlal sangoo waaw saa boo demee ba war a julli nga dem nga dem jàpp ba set julli waaw waaye daal nekk na mbir mu am solo boo xam ne juróomi fan nga koy def juróomi fan nga koy def léegi nag euh, laaj boobu noonu nga xam ne doom yi wadd na si suuf jël ko nga dajale ko après nga gas ko suul ko bu ko bàyyi foofu dégg nga mbir mu am solo la boo xam ne képp ku koy def wala anangim di nga dem a dem dem ba yow sax da nga xam ne am na lu neewoon sa yaram li lay yàqal dañ na sa vidéo dana leer dana set dana rafet dana sel te lépp lu ci nekkon di la doon yàqal lepp lo xam ne ñu ko doon def ci yow wala ñu ko doon wax ci yow mu lay yàqal dana dana dem dégg kon ñu ngi dimbalante ak yéen lepp lu ngeen fi jël di ko def rek yéen yàlla ko ñi ñuy wotam di ñu sant pour ñu dimbale leen defal leen ay mbir ñun ñëpp yàlla yàlla aar leen sam leen faj seen aar yëpp si zaar ak si batin yàlla defal diggante yi ubbi buntu wërsëg yi yàlla aar ñu sàmm ñu kon ñu ngi yem fii ba suba asalaamaaleykum